ma ci mbër bu njool bi kan la RTS RTS Jargolo moo nekk nii Jargolo moo nekk nii moo nekk nii ay ca arbitre bi ngi waaj a sifflé dox ci diggante RTS ak Ndiarga Lo RTS <laughs> nag bii xool RTS 1 la wala 2 waaye gars koy bëgg a rey <laughs> RTS suñ internet yi koy bëgg a rey waaye RTS a ngi noonu moom nga jàkkaar lool Ndiarga 2 wala war ginnaaw mbokk yi arbitre yi àtte na sifflé na ñu ngi lewaatoo mbokk yi ndeysaan ñarga de RTS combat baa ngi noonu ndeysaan RTS mooy njool bi njool bi mooy RTS jiital tànk càmmoñ ñarga de wala ñarga loo moo woon ginnaaw jiital tànk di jor ñoom ñaar ah ña ngay de Ñarga Lo RTS bu combat bi di bu doon maa yow nag danga koy gën a ñooxu rek ndax RTS yi ma gis loxo yi jot na tànk yi jot na macha allah te ñoor moom buy bëreeg ndaama ndama bi jegel rek def liñ la sant. ndax ñëpp xam nañ ñu teewu taar ci tànk yi nga jëm. ndawal dugg ci tànk yi. <laughs> waaye kenn kenn kenn du seya bu bu barñee démb ne lamb lamb ja amoon fas si kele Bougar Ndour organisé ko moo ko jël waaye seya moomu macha allah mbër la champion GA ku ko liggéeyal am mbër am ku ko taxaw champion ndeysaan moom GA ñoo nga noonu RTS cokkaas na ndeysaan RTS cokkaas na njargaloo nag ah xaw ma ban tur la jargaloo ndaysaan mbër bu daanoo wéet des fois nga gis mbër muy génn ñu lëng ko ndaysaan nga rus man damay rus ndax man bëgguma gis ko am gàcce te bëre foofu góor la waaye ku daanu rus ku daanu rus. te nag ñu ne yéen. xëy lu sañ lu rëy la sañ sax. damaa ñaaw rek waaye du ma ah, am na xaalis am na suñu Babacar. waaw te loolu war laa doyloo. kamandal du xam morom benn gore. ana yille yille. barki démb laale nañ suñu diggante presse bi ak Fadel waaye rawatina ak moo gën events waaye loolu liñ ci mën a jànge mooy ndaysaan ñi bokk teen ñooy laxasooy goj duñu ay noon dañoo amoon ñàkk a déggoo mais loolu bu la neexoon nga jëfee ko boo ñëwee fas sa kanam wala changé mais ba jour boobu nga ko fàtte. yéen a ma ba ñooñu mun maa bëgg. loolu rek la. na loolu def. yaa gore. ndeysaan sama xarit la. arbitre bi sifflé la. dox ci diggante RTS. ak njërgaloo. njërgaloo RTS. ñoom ñaar ñu ngi ci combat ndeysaan ñoom ñaare ngi ci combat bi ak RTS. Ndiarga RTS. Ndiarga RTS. Ndiarga Lô RTS. Ndiarga Lô waxoon naa la ko RTS day dox sa kaw day dox kaw RTS doxal doxal ma ngay wax naa la ko Ndiarga moytul loxo yi rees mii ah xaw ma de xoolal rees ma ngay xool public bi <laughs> waaye rees waaye dóor na ba mu yàgg mu xool public bi public bi daal ñoo ko war a wax ba xam dóor bi dal na wala dalul yàgg a maar làmb daal a ngi nii RTS njargaloo ndeysaan njargaloo RTS combat baa ngi noonu ndeysaan Ndiarga Lo RTS waa arbitre xanaa gisul ni am na ku toj arbitre bi xanaa daa kataraak ah waay daa kataraak kay ah waa arbitre ah arbitre nootoo arbitre nootoo tey supporter moom daal na mbërëm di dóor rek ku mu naajteel nga kontaan

mu ngi yëngu waaye xale yi mu àndal jéggi ay jigéen yu rafet la ndeysaan RTS moom nga jàkkaar lool ba tey ak njargaloo ndeysaan njargaloo dem na ardo ñëwaat na daw na jëli RTS njargaloo jël na ko RTS jàpp na njargaloo ëñ na njargaloo moytul RTS njool la njool du gaaw a jeex bëre moom ci xel ma ngay dóor njarga dóor njarga ma ngay dóor dóor na RTS siggi na boobu dal na fu mbër siggee am na lu xew dóoraat na RTS gis nga siggiwaat na boobu dal na foo gisee mbër siggi am na lu xew maa la wax loolu ma ngay fay RTS ma ngay fayu lambi dóor fayo ko RTS Ndiarga Lo Ndiarga Lo RTS ma ngay dóor ma dóor RTS a ngay dóor ma dóor caxla daan na ko RTS daan na bàyyi jàmbur waa RTS lu muy def nii laay laay la laa doon jéggi RTS doon jéggi ma njaab R4 ba toj na ma njaab foog góor la ndeysaan ma ngay jàpp waaw waaw waaw waaw xoolal kii maa moom a yem de mbër maa nga gaañu nga jël ndox di ko ko fa sotti di fa sotti ndox kii maa ngi moom a yem rek demal ci ardo bi nga faju kaay